hors de souffrir euh, ci euh, tâtonnement ak euh, benn esprit vindicatif boo xam ne ne que kenn rek a ko fi yor mu ànd ak ñenn ñoo xam ne ne que mënuñu jàkkaarloo ak moom wax ko li xew exactement muy président Macky Sall commencer d'abord yéen euh, mais duma fa yàgg fi ngeen démarrer euh, Massawu c'est votre collègue Serigne Saliou euh, parce que li ma jàpp ni que c'est encore un recul de la démocratie sénégalaise parce que on n'a même pas besoin d'être un académicien pour que ñu xam que la démocratie ak la liberté d'expression sont deux choses consubstantielles kenn mënul tudd démocratie fekk tuddoo la liberté d'expression vice versa mënoo tudd la liberté d'expression te tuddoo la démocratie ñëpp xam nañ ni que lorsque Platon dit la philosophie et la fille de la cité li tax cité am moom mooy démocratie li tax cité am moom mooy la liberté d'expression di informer sénégalais yi te di leen jox des informations justes crédibles képp ku koy def je considère que kenn amul droit euh, tëj la sur la base de cela et loolu li mu ñuy won mooy regarder en 2013 le Sénégal était classé cinquante-neuvième mhm. par RSF Reporters sans frontières aujourd'hui dernier classement bi bi mu génnee tous les Sénégalais de quelque bord qu'ils puissent se situer à quel que soit pays ba ñu mënti dem dañuy sëgg parce que on est à la cent quatrième position mm -hmm. cela veut dire que entre temps la déchéance ak li nga xam ne ni que moom mooy recul bi am mhm. qu'est-ce qui l'explique ce qui l'explique que nous avons un gouvernement mhm. avec à sa tête le président de la République qui du matin au soir ne cherche qu'une seule chose c'est à faire c'est de faire taire képp koo xam ne ni que da ngay yor une voix discordante par rapport ak moom li nga xam ne moom la bëgg a doxalee réew mi pour en venir maintenant au verdict. Pape Malick n'est pas d'accord avec toi. au verdict politique bi nga xam ni moom la ñu joxe ci affaire Sonko li ma waxoon moi en tant que membre de Taxawu Sénégal nga xam ne ne que teg nañ ñun aussi fitna bi nga xam ni moom la ñu teg tey waa PASTEF teg ko Ousmane Sonko ñun dund nañ ko pendant cinq ans parce que tout le monde sait que Khalifa Ababacar Sall on lui a envoyé benn mission d'audit bi ñëwoon foofu génne benn rapport. on a fait une utilisation politique du rapport. On a fait une instruction politique du rapport. On a fait un procès politique du rapport. On a donné un verdict politique du rapport. Et de bout en bout et d'une manière systématique, tous ces droits ont été violés le peuple sénégalais assisté ci nous avons résisté ak ni ñu mën a mëne mais malheureusement le pouvoir compresseur de l'État était de telle sorte que malheureusement li objectif bi Macky Sall fixé woon mooy fexe ba Khalifa Sall du bokk ci élection objectif boobu ils l'ont atteint ils se sont dit que def naa ko neex na dama koy recommencer waat tout le monde sait que aujourd'hui singali gi ñu singali Ousmane Sonko lenn dong nga ko waral lenn dong nga ko waral ce n'est pas un discours haineux et je le dis je le conteste vigoureusement je n'ai jamais entendu Ousmane Sonko tenir un discours haineux je ne suis pas du PASTEF mhm. je suis très bien placé pour en parler parce que d'autant plus que y a dans même certains membres du PASTEF yoo xam ne ni que nous ne sommes pas en bon terme ak eux mais suñu fi nekkee dañuy wax aqulaay taala te yàlla rek a tax lenn dong nga tax ñu singali Ousmane Sonko mooy c'est quelqu'un qui a un projet et qui à travers son projet a réussi à faire adhérer énormément de jeunes dans son combat. parce que donc vous vous êtes d'avis aujourd'hui que euh, verdict bi jot a génn ak tout ce qui s'est passé c'était pour écarter un adversaire politique. mais ils sont toujours dans cette volonté d'écarter un le problème c'est qu'il faudra que le peuple résiste que le peuple debout se mobilise et que tous les citoyens sénégalais également se mobilisent empêche Macky Sall de recommettre encore cette troisième forfaiture. On l'a fait avec Karim, on l'a fait avec Khalifa. Je considère qu'il n'a pas le droit de le faire avec euh, Ousmane Sonko, quel que soit ce qui peut se passer. Pourquoi pourquoi ngeen dem ci la facilité. et c'est là et pour rek ñëw ci li nga bëgg a wax ni toujours écarter un adversaire politique mais si l'État pour man. li ma gëm mooy su fekkee état am na intention. Mhm. écarter un adversaire politique appel à l' insurrection ñëpp ko fi gis appel di menacer des magistrats di menacer et di def des sortes yoo xam ne en fait dangay ngay tëj téye sa bopp ne est ce que lii kii dina fanaan këram et pourtant su fekkee ne état bi le gouvernement. moom mooy ordonner la justice pour que mu arrêté Ousmane donc foofu da ngeen ni ma lan la fa def ba defu ko su fekkee ne si ni nii magistrature moom moo war a pour dem arrêté Ousmane lu tax boobu ba léegi amul donc occasion yëpp ku ko mën a bàyyi mu jàll pour un dossier civil ñu àtte ñu ne non c'est question politique ma daf may jaaxal. waaw li ñuy lañ koy teg. Oh, très bien ma wax la man fan laa ko teg waaw mais soo laajee ba pare dangay noppi nga bàyyi ki nga laaj mu tontu la. voilà man dama lay wax ni que donc yow danga am une conscience sélective bi. Dumburu Sow Dumburu Sow tout le monde sa rappelle des propos de Dumburu bi Dumburu di génn di wax ni que ne nit ñi dem jëli seeni jaasi défendre la république au prix de des sacrifices et d'un génocide yow foo nekkoon et pourquoi à l'époque interrompre pour ne leen na magistrature génn te parce que boobu c'est même mille fois plus grave que l'appel à l'insurrection parce que li mu wax pratiquement fi ñu ko doon déggee mooy au Rwanda à l'époque du génocide rajo Mille Collines di ko génne lorsque quelqu'un comme Amath Suzanne Camara génn ci biir néegam filmer boppam en direct ne nañu rey Ousmane Sonko mais fan ngeen nekkoon à partir de ce moment donc il va falloir aussi que lorsqu'on analyse ce qu'on analyse non man tontuuma la yaa ma interpellé dama joxe mon point de vue j'ai dit que à partir du moment où l'on parle moi je m'adresse au peuple ba yegg fii tey insurrection di wax waxu empêcher quelqu'un d'être candidat à une élection ne ne on a reculé parce que en 2012 il faudra que ñu revenir sur les principes lu tax ñu faloon Macky Sall te ñun ñii tey et je l'ai dit le ministre est là il peut confirmer parce qu'il fait partie de cette jeunesse vaillante mm -hmm. qui s'était battue en 2012 pourquoi ñu faloon Macky Sall on s'attendait à élu Macky sur la base d'un double espoir ñaari espoir moo taxoon ñu fal ko dañoo considérer ne que Abdoulaye Wade il a inauguré benn chantier boo xam ne ni que man na développer structurellement le peuple mais il y avait un capital humain boo xam ne il fallait le compléter mu indi un programme tuddee ko dekkal ngor mhm. je rappelle que moo jiitu PSE bi sénégalais yi jàpp beaucoup de jeunes jàpp ne que avec ce programme s'il y avait une possibilité de redonner de l'espoir à ce peuple ci la leen promettre les cinq cent mille emplois par année et je dis que tout cela a été un échec lamentable le deuxième élément boo xam ne moom moo tax ñu fal ko mooy dañoo jàppoon ni que avec Abdoulaye Wade la constitution avait fini par être un torchon à l'époque on le disait on disait que Abdoulaye Wade était en train de tripatouiller la constitution c'est pourquoi lan lañ doon wax il nous faut une constitution boo xam ne que ça Euh, régler définitivement certains aspects en quoi faisant en mettant des clauses d'éternité et parmi cela yoo xam ne que moo ñu gën a sonal te chaque année ñu ñëwaat ci mu nekk benn éternel recommencement mooy la question du processus électoral tey ne ne fi ñu waroon a toll douze ans après le combat bi nga xam ne moom la ñëpp mëne woon douze ans après xam nga man lan laa xalaatoon tey à huit mois des élections présidentielles nga ni ma soit en face de Pape Mam euh, voir la politique de la jeunesse du président de la République lan fan la ñu jógee ak tey fan la ñu toll sur le plan de l' agriculture fan la ñu jógee ak fan la ñu mais loolu tam est ce que du yéen homme politique yi yéen yéen a indi débat bi à que mu toll fii. non indi wuñu le débat à ce niveau parce que ñun amuñu benn pouvoir ne. président de la république doo fi defaat un troisième mandat nee na ñu ñëwaat à la réalité des faits lan moo indi toute cette tension cette volonté d'éliminer un homme cette volonté de s'acharner sur quelqu'un lan moo ko indi mhm. mais li ko indi mooy un troisième mandat bi président bëgg a brider briguer yaa yaa nee na ngeen ñaan ko njekk non ngeen ñaan ko ko ci njekk ak teraanga mu may leen ko xoolal cette forfaiture j'ai honte lorsque je l'ai écouté j'ai eu honte je sais que j'ai baissé les yeux d'une manière instinctive parce que le président bi ma jaakaar loolu gis ko muy wax loolu non dama rus parce que le président de la République il n'incarne pas la souveraineté nationale la souveraineté nationale est un élément du contrat social boo xam ni moom mooy le socle de notre démocratie d'accord le président de la République mm il n'est qu'une institution et cette institution n'existe que parce que la souveraineté existe xam nga kan mooy souveraineté nationale oui. le peuple sénégalais mm -hmm. peuple sénégalais moo waroon a taxaw ne ñaan leen ma njekk man peuple sénégalais su ma amee beneen mandat ma jox la le président n'est pas la loi La loi, est l'émanation du peuple. le, mandat le président de, de la République n'est pas la volonté générale. La volonté générale, c'est l'expression et l'émanation du peuple. Mm -hmm. Et mhm. c'est pourquoi je dis qu'il y a des mélanges de genres. tey dañoo am un président qui considère que moom buur la moom mooy buum moom mooy buumi amul lenn loo xam ne dañ ko ci ñaan te kenn du ko ñaan dara il n'a pas le droit de faire un troisième mandat la constitution de tout dit qu'il n'a pas le droit de faire un tey lépp lu mm-hmm. de tension terme de en en terme de de d'agression en terme de violence je considère qu'il y a qu'un seul et unique responsable mm-hmm. c'est le président Macky Sall moom moo am le pouvoir d'y mettre un terme mm-hmm. Ousmane Sonko n'est absolument rien absolument rien à voir avec ce qui est en train de se passer je le dis et c'est l'occasion aussi avant de terminer de lancer un appel à toute l'opposition il ne faut surtout pas que cette histoire de dialogue divertir nous jusqu'à ce qu'on oublie l'essentiel. Et je mets dans cet appel Bougan, parce que je l'entends attaquer tous ceux qui sont partis à ce dialogue. Il n'a pas ce droit. Parce que le Bougan ni li dal Khalifa Sal, dal Sonko, Menako, dal te et Souboba, il aura besoin que toutes les forces vives de la nation se mobilisent pour également lui venir en aide. Parce que Kinko Sekhan, il considère lui comme mon moi la loi. moom mooy kii décider même ki ko war a remplacer moom moo koy tànn. Macky amu ci droit. du moom mooy tànn ki koy remplacer du moom mooy tànn ki mu war a janool moom li ñu ko tànnaloo mooy mu définir une vision qui permet au Sénégal. d'être sur les rampes du développement. moom lañ ko définir pour parler de ce pour parler de ce dialogue dafa am ay cadre yu ngeen bokk mu yeewi askan wi ak F24 avant même de parler de Bougane bi wax waxu dialogue mais yéen au sein ci cadre yooyu ngeen bokk ñoom ñoo njëkk dàq waxu dialogue bi. musuñu dàq dialogue. je le je ils ont sorti un communiqué pour dire qu'ils n'acceptaient pas la main tendue du président de la République. avant que ñeneen ci wax. dafa am une confusion buy am gis nga les principes sur lesquels Yewwi Askan Wi a été fondé. Mm. ce sont des principes qui consistent à lutter contre trois éléments essentiels. premier élément c'est d'abord que mettre un terme. Mm-hmm. à l'instrumentalisation de la justice. qui consiste à faire de telle sorte que mu am kumba am ndey ak kumba amul ndey à chaque fois que quelqu'un est proche du pouvoir soo amee un dossier judiciaire Mmh. L'instrumentalisation est faite de telle sorte que d'une manière efficace et rapide, la justice te condamne. Lorsque tu es un proche du pouvoir, te gisagu leen et je demande au ministre de m'en citer un koo xam ne nekk na dans le pouvoir du président Macky en douze ans de règne am nga un dossier d'audit ñu épingle la par OFNAC wala Cour des wala IGE ñu jël sa justice sa dossier yóbbu ko justice mu am une suite judiciaire musul am mhm. donc Yewwi a été construit pour lutter pour que ñu amaat une justice indépendante te tey li fi indi lii lépp mhm. absence de justice indépendante moom moo ko indi mhm. ça été le premier principe le deuxième principe ça a été de nous battre pour avoir une coalition électorale qui nous permet d'aller ensemble aux élections locales et d'aller ensemble aux élections législatives maintenant fi ñu jëm mu élection présidentielle mais dañ ne woon chaque parti ou coalition de partis est libre de se construire autour de son leader et d'y aller C'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est pourquoi moi, l'appel au dialogue du président de, la, de Khalifa Sall, mm -hmm. le fait que Moudemfe, nous avons voté oui. Nous continuerons à voter oui parce qu'on considère, quel que soit ce que le Macky Sall est en train de faire en termes d'erreur, mm -hmm. il ne faut jamais couper le dialogue avec Mom. Il faut continuer à parler, il faut discuter mm -hmm. parce qu'en dernier ressort, l'umu metti metti metti, c'est autour d'une table que tout va se régler. Que tout se règle. Alors, euh, parce qu'on euh, a bu Babacar Justin nekk euh, mu nekk euh, pôle communication wu gëm sa bopp qui soutient que euh, ay haute autorité de la police ñu ngi manœuvrer pour jàpp kii di président euh, Bougane Gueye Dany parce que euh, ñoom ci manifestant yi ñu arrêté démb ñi doon manifester dafa am ñu ñu ci wax ne que ñoom ñoo ne euh, président Bougane moo leen recruter pour ñu manifester naam kii di Justin mu ngi dàq kàddu yooyu le lan lañ ci mën a jàpp concrètement